vraiment dafa nit ñi dañ doon jàpp ne Khalifa Sall bu néewee ba néew dina ci am douze pour cent onze douze pour cent nit ñi jàppoon ne Khalifa Sall dina bokk sur les de de, de loi mais nan taxawu Dakar ak taxawaay bi ngeen am depuis 2014 taxawu Sénégal ak taxawaay bi ngeen am depuis 2014 qu'est-ce qui s'est passé même au plan national ba mënul leen positionné wu sax troisième wala wala wala wala quatrième vous êtes à moins. Euh, un virgule cinquante pour man mënuma ko justifier parce que su fekkoon ne ñàkk mooy tax nit jëriñu xalifa Sall jëriñu nekk président commencé ko mille dix-neuf bi ñu ko jàppee tëj ko ci kaso bi 2017 jàppee tëj ko ci kaso bi Khalifa Sall musul négocier Khalifa Sall su bëggoon a négocier du dem kaso bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko defee mandat dépôt bu ko neexoon négocier génn yoon yónni ku ne ci kaso bi Khalifa ne ko du ma négocier dem procès ñu tëj ko mu ne du ma négocier ñu bëgg ko gracier mu bañ xool leen ba avocat moo si grâce su Khalifa xool leen ko. est-ce que avocat yi mu jëloon la wala benn avocat bokkul ci ci pool d'avocat bi moo moo ko signé kooku depuis 24 ans mi ngi dans l'opposition il est cohérent ci li muy def mu jóge foofu malgré tout mu dem ci àll bi 11 à 12 mois mu koy wër tourné dem au fin fond même du Sénégal wax ak sénégalais yi donc Khalifa Sall def na li mu def sénégalais yi ñoo ko ne jox nga ñu su programme baax na naam mais programme président Diomaye Faye moo ñu gënal. mais ah quand même euh, score 1,56 pour cent même pas 5 pour cent mais mais noo ko justifié su fekkoon dafa tëdd nelaw deful mais dafa def li war def wër Sénégal 12 mois si àll bi di fanaan këram di fanaan si biir àll bi fanaan si ay néegu ñax dem fu nekk yàlla yàllaa ko namee nii. est-ce que amul amul loo est-ce que ce que li bis bi yi am euh, diggante taxawu Sénégal ba Barthélémy Dias Khalifa Sall. ak euh, waa waa waa waa PASTEF est-ce que les les des Sénégalais ne vous ont pas fait euh, ne vous ont pas fait payer est-ce que des Sénégalais n'ont pas quelque part tranché le le le différend. waaw mun na nekk parce que boo xoolee la majeure part de population dañu ànd dañu ànd ak président Ousmane Sonko monsieur le premier ministre donc mun na am ñu jàpp loolu mais pour man ku ko jàpp da nga juum parce que.